amaat mbégte Mouyato, yaatu ak ci Radio Futur Media and ak yéen seen émission Khalas mu suñu journal fait divers lundi ba vendredi ci Radio Futur Media ñu ci and ak yéen di ci and ak euh, Mamadou Ndoye inspecteur gannaaw su ma nuyoo Sénégal m'a ngi leen nuyu bu baax baax. ma ngi lay ziar di ziar passeport auditeur yépp ma ngi leen di ziar di leen ñaanal jamm hmm. te diko ko ci di ko ñaanal waa réew mi waa bitim réew sénégalais yi nekk ci bitim réew ñu ngi leen di ñaanal jàmm euh, la wuti bitim réew yàlla na leen ko yàlla may te mu jig leen yàlla na leen ko yàlla yombal te te mu jig leen mhm. waaw surtout te mu jig leen euh, waa réew mi tamit yàlla na yàlla may jàmm mhm. jàmm ji ñu def ko ci biir kër yi def ko ci biir néeg yi def ko ci mbedd bi def ko ci bërëbu liggéeykaay yi def ko ci xol yeeg xel yi jàmm ci xol ci xel loo am solo la. waaw mhm. na moom waaw jàmm. waaw soo ko amul sax jéem ko am. Hmm. yéen wut jàmm ñi bëggul jàmm sax yàlla na leen may jàmm yàlla may jàmm ñi bëgg jàmm yàlla na leen yàlla may jàmm amin ajuma ji di ñëw yàlla nañ fekk fekk ñi febar, yàlla na leen yàlla may jàmm def jàmm ci hôpitaux yi def jàmm ci kaso yi def jàmm ci rajo yi def jàmm ci gendarmerie ak police wax la xam nga xam nga aussi tamit sawaay moo lay wax dëgg waaw yii bàyyi ko oustaz abdou karim ba yaay trois minutes ñaan nga ko jàmm baax na xam nga lii mooy indi ay Ndiaye temps jàmbur nga bëgg faa toog di ñaan jàmm. yàlla na leen yàlla may jàmm. waaw d' accord nañ amin amin amin amin <laughs> léegi d' accord nañ. waaw yàlla mi borom jàmm yàlla na defal ñëpp jàmm. sénégalais yi nee na ñàkku yi na nga ciy jiitu. man kay maa man kay maay gën a yàkkamti ñu ñàkku. man kay président Macky Sall fi ñàkku na ma woo. yow ak Mansour Faye. waaw man amul comme moom lañ joxoon kii mu ko doon séddale. dama ne ñàkk yi na ci jiitu. dama ni man day ñak yi suma jéggal nañ ko suma xamé ni jour bu ñuy ñëk ñak man bokku na ci ñi nga xamné volontaire na pour bokku ci ñi ñëk ñak hmm. waaw ah, kon baxna waaw ak boy dem yobale ma ah damay ah. ñak passe partout <laughs> ma ngi lay nuyu bu baaxa baax ma ngi delo ziar di nuyu ban di nuyu auditeur yek euh, internet yep di ziar bu baaxa baaxa baaxa baax da da ñu bëgg nuyu nak spécialement bismillah wa gambi hmm. wa gambi ma ngi leen di ziar bu baaxa baaxa baax jotale naa seen nuyoo ci Ndoye Ba nag Mouhamed Ndiaye ak Aba Aba est sincère naa mi ngi mm-hmm. waaw mi ngi noonu nuyu partenaires yi ñuy àndal ci xalaas. Mm-hmm. bokk na ci saabu faniko ñëw àndaat ak ñun ci xalaas saabu faniko loo ci wax ci lu baax rek des na askanu Sénégal ñoo ko bëgg ndax dañu cee gis njariñ saabu faniko am bu mag am bu ndaw saabu bi gaaw na xëpp mën naa setal boole ci kit dalay bàyyil xet gu neex moo xam ci yére yi wala bu dee da nga koy sangoo saabu faniko doon saabu boo xamante ne ji conservation bi rek jar war naa tax kon nit ñi di ko di ko jëfandikoo. ndax mm-hmm. conservation bu baax te mucc ayib la. Mm-hmm. accessible nag foo dem ci réew mi boutique boo dem boo laajtee saabu faniko am ko euh, benn la ci réew mi di ñu gunge ci xalaas beneen partenaire bu ñuy gunge ci xalaas mu di établissement waa Kër Serigne Touba Fallé frère mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo ñu indil gaamu vite fait li tax ñu ne gaam la mooy dafa am ah. tuuraayu boo xam ne day dàq yoo mm-hmm. di la bàyyil xet gu neex ci ci fi ko taal yamuñu ci ñu indil ñu insecticide di pompe boo xam ne foo ko pomp lépp luy lore moo xam mbóot la moo xam weñ la moo xam yoo la daf lay abal mm-hmm. ñu ne déet na waaye ñu indil ñu euh, pâte dentifrice vite fait euh, ay ci bëñ mën ko weexal di ko sàmm di ko wéral di la bàyyi xetu gémmiñ gu neex ba noppi établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère andi frotté vite fait mu am pommade am tube euh foko diw ci yaram buy metti euh, sa yaram yépp da fay nekkaat en forme say muscule delluwaat say yax tegewaat fa mu war a tege mhm. loolu frotté vite fait tube bi nak man mom euh, du ci doyal dox mhm. na gay nañ ko bàyyi xel ndax mën nga ko def sa sac fo dem yobalé ko lulay metti rek mhm. euh, nga nga jëfandikoo ko établissement Waa Kër Serigne Touba 77 555 11 11 77 696 34 67 wala 77 441 06 38. Benen partenaire bo Daniel dañuy and ak mom ci CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal comptoir commercial de plomberie du Sénégal spécialisé ci walu sanitaire ak ay euh, matériel de dernier cri ay lavabo en couleur CCPS ay tuyaux en pax euh, pex wala euh, galva ñu garanti la 2 deux ans les luy matériel sanitaire ministère tuyauterie wala plomberie tégal ci loxo comptoir commercial de plomberie du Sénégal yamuñu ci neet it am nañu ay matériel irrigation yu muccay yu doy waar champion bi réew mi soxla ngir doxal mbay mi moy mhm. comptoir commercial de plomberie du Sénégal ndax yi nga xamantene ne ji amee nañu ko ne ay matériel yu bax lol mhm. beneen partenaire buñu fekk ci ci xalaas modi baro Baara baro Baara Mousso ñu ay produits yo xamantene ne ji day noppal jigen ñi togg ndax soxla wo dëbb soxla wo eh, di tankal say dëkkandoo wala di yàq say loxo ay produits baro Mousso 100% naturel la mhm. ñu jël lépp nak lo xamné ne danga da koy sort soxla pour togg lu ci melne euh, piment simple wala piment aromatisé muscade wala lay en poudre yépp dañ koy def laurier ba ci li nga xamante ne moutarde en poudre baara muso am na ko ñu né déet ne waaye ñu andil ñu li nga xamné euh, gingembre en poudre baara muso 77 438 38 30 85 wala 77 289 41 35 ban passe partout partenaire yaa ngoog. ayca jaajëf léegi nag. waaw bu ngeen ma maye dama am express. gis nga. li may wax nii. Hmm. dafa tàmbali soreegul. Hmm. pour mu bañ a sori nag ci ñun la aju. Hmm. bu ngeen tëddee guddi. dégg liir buy jooy seen buntu kër. liir waaw. bu leen dem tijji. du tax ay jinne ay nit ñooy jël benn xale. teg ko ci buntu kër. dóor ko pour xale bi jooy ñu làqatu booy tijji sa buntu musiba dal na. ñu assommé la waaw. am na koo xamante ne ji moom noonu la def nee na mu togg dégg jooy jooyu liir yi mu yëg ci balcon di xool ñi ko fa teg toog booy bi di jooy ba noppi mhm. ñu génnaat fañ làqatuwaat dóor xale bi mhm. pour di jooy booy bi jooy toog ci balcon mu toog ci balcon bi bañ fa defee ay trente minutes mhm. kenn ubbiwul benn taxi ñëw jël leen ñu gàddu seen liir dem moo tax bu ngeen déggee luy jooy guddi seen buntu kër yi daa wóorul leen tij yooyu bu leen tijji. wóorul liir buy jooy. mën ngaa dajeeg agresseur mën ngaa dajeeg njuuma. wóorul daal. fu ñu dem man tamit am naa benn express de. jaay <laughs> euh, mooy suñu waajal na Tiwaawan. te nga xam te ne mënul wax loxo ba damm. Mm-hmm. man nga Tiwaawan fi ñuy wax quartier kër Cheikh Awa Balla. Mm-hmm. problème bi nag mooy xamuñu turam. Mm-hmm. waaye dal, ku ci sa mbokk xam tan dal mënul wax te xel mi tamit neexul hmm. ma nga tiwaawan te fu wax kër Cheikh Awa Balla bu ñu contacté góor la ñu la waaw la bu xaw a teint ni hmm. ma nga ma nga foofu daal tabax tabax nañ ko loxo bi dafa dam loxo dafa dam instant bi hmm. ba pare wax dafa waaw waaw ok man sama sama express waaw ah. ci guddi couvre-feu la ñu nekk sénégalais yépp toog seen kër respecté bi am ay français 18 Français, mm 2 deux, deux, deux, deux Franco-Sénégalais mm ben Belge. C'est des, hmm. c'est des jeunes hmm. entre 20, 20, 20 et quelques, 22 ans, 23 ans, mm louer ben appartement. Tout fait des anniversaires, des noces. Bawa hmm. ko ñu ba wo gendarmerie gendarmerie def fa descente ramasse len ñom ñep yobul len kenn ki nga xamne moy belge nak mom mon papa am ambassadeur la dafa am baralum kirlay du koy protéger. immunité diplomatique waaw kooku libéré nañ ko waaye dix huit français yi jàpp nañ leen deux franco sénégalais yi jàpp nañ leen woo naa commandant jotuguma jotuma ko bii ci guddi woo naa ko sama matin jotaguma ko mais ñuy ñaan ñooñee nañ leen jaarale fi ñuy jaarale sénégalais yi def lu mel noonu te jàpp leen. Mhm. xam naa dina am ay intervention parce que c'est des français français sénégalais belge ak américain ci de loi loi la dañ koy tere mhm. sénégalais bu ko ci defoon tey jii dañ lay jàpp def li la war a def defeere la mhm. ñoom it def nañ lu ñu war a def fii ci réew mii di Sénégal nañ ko leen jaarale fi ñuy jaarale sénégalais bu def lu mel noonu munoo nekk ci dëkkub jàmbur ñu defal lu ñuy tere ñëpp di xeex mbas mi ñoom seen dëkk yéen jóge mbas maa ngi leen di bëgg a rey ñu bëgg a fii di fi organiser ay anniversaire ba dëkk ndóoyu woote Hmm? voilà xibaar bu wér te wóor. leer na moom. voilà leer na man ngay commencé ñu woo commencé woo gendarme yi di intervenir ak yu kenn xamul ak naan doomi diw la ak yu amul doomi diw amul doom kii nañ leen jaarale fi ñuy jaarale su ko ab banlieusard defoon wala ko ab villageois defoon wala doomi néew doole defoon.

te wóor. on ne <laughs> bàjjan bi. Ndiaye. ban kii ab guinéen la. Hmm. man nag sama xar sama jarbaat yeeg sama rakk hmm. étudiants yi étudiants dañ may rusloo ko luñ def ni leen arnaqueur di di naxe. Hmm. moo metti su dul su dul arnaqueur bu dëkk bene ma nga dëkk Cameroun. wala Burkina Faso wala ci internet bi nin leen di naxee dafa yomb tellement que man daf may metti kii ab guinéen la bu ne fii Ndakaaru hmm. di leen woo di leen arnaqué hmm. di leen wax ne dama lay wutal liggéey njaay dama lay wutal liggéey loo may laaje vingt cinq mille plus de deux cent trois cent personnes ku ne nga laaj ko vingt cinq mille francs hmm. dama lay utal liggéey Auchan dama lay luga utal liggéey ci yenn bërëbu liggéeykaay yi ñu frais de dossier booy toog fa mu toog nga koy yónnee ma sa carte nga yónnee carte d'identité ak vingt cinq mille mhm. mu encaissé la réer la benn xale bu jigéen nag moo moom moom lañ ko def mu dem bay jël woo frère am pour mu yónnee ko xaalisam xelam ni yar xalaas mhm. mu waa ji gi def loolu woo naa ko tey ci suba mhm. ci kanamu Passepartout wax ak moom reconnaître que ni ne moom nee na waa d'accord damaa def erreur dama doon dama leen doon arnaqué man ko est-ce que xam nga ni gendarmerie ngi lay wër mun ma ah man ko waaw kay wax mu nekk ci Facebook bi. Mhm. publier affaire bi booy booy étudiants yi di wax ak moom eh, la li ñu ci bind. intéressé intéressé intéressé dugal seen numéro waa jël leen WhatsApp bu leen di leen encaissé déglu. man de damay damay reetaan sax mais damay jooy ndax man jooy ma sama bopp de waaye man nit yu bëri yi mu ko def te boo xoolee système bi

ma demaat Facebook di connecté wu sama compte pour xool sama message e genre ma gis euh, moom aussi mu envoyé waat ma message bi léegi si laa ko man man tamit ma répondre ko ma ne ko intéressé léegi si la ma envoyé numéro boobu ma la envoyé noonu mu mu envoyé ma ko ne ma PV WhatsApp man jël numéro bi ma enregistré ko may wax moom WhatsApp mais li may wax ak moom yëpp maa ngi reetaan maa ngi tam parce que xam naa ne kii euh, arnaqueur la dealer bu mag a mag a mag la léegi si def très attention ma commencé di ko poser ay questions yaa ngi dégg ma koy pour man liggéey koy offrir di nga euh, photocopier sa carte au moins nga légaliser ko mu ne ma non garaawul léegi da ngay photocopier carte d'identité bi rek boo ko photo si sa téléphone nga envoyé ma ma koy poser des questions noonu yaa ngi dégg bu ma comprendre ne dealer la la commencé di di di di poser yenn questions yi noonu. mais moom comprendre la ba léegi pour moom bëgg naa bëgg naa man ci laa ko piégé aussi ma ne ko man nax nañ ma si ñaari yoon léegi mu laaj ma comment mais bi ma xamee ne alhamdulilah sama xel dem si ma te numéro bi këru naa ko si laa enregistré ko envoyé la message yooyu ma la envoyé noonu vrai dealer la ngir yàlla war a suuli boon yi ñoo ngi dee jigéen ñaa ngi dee wallahi azim wallahi di ñaax sama mbokku jigéen ñi sama mbokku jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi ces gens là ñoom ñoo yàq dëkk bi xam nga ne élève boo xam ne depuis boobu ba léegi mi ngi toog amul si lu mu jàpp di wër liggéey nga koy fayloo ay quarante mille francs ay ay ay vingt cinq mille francs ba pare def ko ñaata nit man j'ai fay ma woo sama frère bi directement ma wax ko dama bëgg déposé liggéey xalaat naa nu ma ko koy waxee ci àdduna xalaat naa ko mais xam naa ne du ko du ko nangu lu nekk xalaat naa ko nan laa war a mën a def ba am vingt mille franc man xalaat naa ko si diggante bi que may wax ak moom xalaat naa nan war a def ba am vingt mille franc parce que euh, bi ma gisee affiche am bi wallaahi mosuma koo foog ne kii nii dina euh, dóorkat la mais d'après bi ñu échangé rek laa xam ne vrai arnaqueur la. fekkee yow di nga mën a poster tey bu fekkee yow c'est nga pour inscrire. essence man su ma la su ma déposé yeneen su ma yóbbu dossier yi su ma la inscrit tey. waaw fekkee yor nga sa pièce bi da nga koy photo nga yónnoo ma ko.

photo pièce euh, ak seen kii waaw seen photo pièce d'identité yi dañ ma ko yónni par whatsapp après dañ leen inscrire direct amul lu mu def après dinañ xool benn jour woo ko pour mu ñëw commencé liggéey. am na ñu xam ne ñu nekk fii mais ñoom seen inscription dafa cher mais seen paiement bi baax na mais yow yor nañu que ne inscription moom vingt mille bu nekk mille chaque mois deux cent mille lañ lay fay. bii nii pour bii cinq mille inscription cinq mille bi juste pour Auchan yi ak kii nii mais fekkee yow defoo formation bu fekk bu def formation kii nii ñi lay woon lépp da ngay fay vingt mais après chaque mois ñi lay fay deux cent mille. xalaas. ki mujjee wax ko góor ki kan la. moom mooy mu waaj la. ah proposition bi la koy defal noonu. waaw waaw waaw ah. moom lay defal ñu bari ñu bari la ñu bari la waxal la. léegi lu tax ngeen de waa ji Guinéen la. kan ci. kii man maa wax ak moom. Ah. man maa wax ak moom mun ma Guinée la. Hmm. c'est-à-dire que gis nga xam nga xam nga Ndiaye. dafa am dafa am groupe dafa am groupe Facebook. Hmm. yoo xamante ne dañ koy créer pour genre ñu bëgg liggéey wala ñu ñu wut a liggéey wala yooyu noonu. Hmm. waaye dafa doon ci benn groupe Facebook bu tudd offre d'emploi stage et recrutement à Dakar. waa ji Facebook am mi ngi ci def maître Serigne Ka. day def benn publication ne da lay wutal liggéey. comme caissière Auchan wala gérante boutique bijouterie wala assistante caissière bureau. ay kii yu bari. bind na ne léegi frais de dossier 3000 francs boo ko contacté dafay laaj si ay photo pièce ak sa xaalis bi nga koy envoyé. su mm-hmm. nga koy gëj mais li si gën a grave mooy ñiy photo seen ay quarante di mm-hmm. boo xamante ni dañoo jël quarante am. Mm-hmm. di ci utiliser di ci signé contrat yoo xamante ni ay ay faux contrat ay arnaque la. jigéen ñi ko envoyé seen carte ak seen ay kii dafa. am na étudiant bu ci dëkk Pire ba nga xam ni. am na ku ci dëkk Pire. am na ku ci tudd Rama Rama Fall dëkk Thiès. waaw nee la 15 10 mois 98 na xam ne ay pièces ñi nga taxawal ci réseaux sociaux yi. Ah. am na ku ci tudd Awa Diop. moom kii dafa xaw leen mais pour la dëkk. ki dëkk Pire am na ku ci tudd ku ci dëkk Pire ku tudd. Aysatu Jéen Ba mais am na ku dëkk Ngaabu tamit. wax dëgg yàlla am na ku dëkk Ngaabu mais dafa leerul. <laughs> Ndiaye tey li ma ci gën a métti bari ki démb. benn boy un jeune étudiant dafa ñëw ni moom. Mm-hmm. Samuel Oto da koo may 19 millions. ci tuban. Etomène. Samuel Etomène nee na ma wax waaw ma woo mu ñëw ni ma jot na ko yónnee frais de dossier un million quelque mook yaayam. Mm-hmm. dafa bëgg ñun ñu jàppale ko pour xaw ma lan trois cent mille francs moo ko tese pour lan pour mu financement fa Samuel oto bi pour mu mën cee jot mu ñëw buntu télé ba wax ma ko man ko sëñ bi <laughs> dañ lay nax waa ji mere ma ni ma ni ngeen def na ngeen a iñaan ci rajo yi ngeen di nekk di mbel mbel yi dimbilu leen kenn kenn man quoi ah, merci beaucoup. bis bu la Samuel Eto'o joxee 19 millions yi ngir yàlla rek nangu ma ci sédd rek. yow yaa tooñ sa bopp sax. ah mais nooy def ah su ma bëggee bàyyi ngeen ne ma bul bàyyi. waaye la man su nit ñëwoon ma dajeeg yow nga ne ma Samuel Eto'o dafa ma amee 19 millions. Mhm. du ma la tontu. ah. mais jëkkat non damay jàpp damay xam ne wéroo du ma la tontu. Samuel Eto'o mais mais mais mais Ndiaye. waaw lii tam lii tam wax leen ci de parce que lii nii tamit lu ko indi tamit xam lan la. Mhm. wutum liggéey bi ci dëkk bi waaw.

Mm-hmm. mooy ñetti problème yi. Mm-hmm. bi nga mujjee réew mu nekk. Mm-hmm. lu bari ci ndaw ñi seenub liggéey mi ngi wékkee ci loosu état bi. bu fekkente ne ñoom na moyen wala pexe wala je sais xaw ma stratégie yi ñu teg pour ndaw ñi mën a am liggéey. du ndaw ñëpp ñoo ci mën a bénéficier wu. problème am na. donc benn ngi noonu. ñaareel ba mooy ñoo xamante ne jiix tey mën na ne bu ñu nekkee ci dii di liggéey. danañ ci am teraanga bu weer dee ñu ne noo man jomb naa liggéey lii. mooy ña ngay wala ña ngay am ci ñoo xamante ne jii tey mënoo leen a wutal liggéey parce que xamoo lu ñuy def. amuñu métier ah, loolu mooy ñetti problème yi nag. am ñoo xamante ne taamuñu lu ñu am jël mais dañ koo gisul. mooy li ma la wax mooy mooy mooy mooy problème mu état bi. Hmm. loolu laa wax. li moo tax problème mu Sénégal naqaree naqaree lijjanti. Hmm. doy na doy na waar de en tout cas de booy daal xam nga li naan jondoo. Hmm. jondoo xam nga luy jondoo. ñu naan diw jondool booy dajee cee ay jondoo. waaye déedwaay ba non jondoo. jondoo mooy seer rek. non non en fait déedéet du seer bëgg-bëgg la gis nga gis nga baan léeg-léeg nit dina def dara nga ne nu mu ko mënee mm-hmm. parce que bëgg-bëggam la lu tax mu def ko bëgg-bëggam la ci li ci li nga bëgg la leen axee nag exactement yeewu daal am na solo daanu fii rek waaw xolama ko tooñ mm-hmm. yeewu baax na ak ñaaw njort mm-hmm. yenn saa yi soo ay mere ma lool yenn saa yi ma def action soo ay mere ma ma ne ko jéem a jàng ci lii may def ñaaw njort lu ñëw sa kanam rek jàppal ni kii nga jàkkaarlu mooy wax li muy wax lépp du dëgg. fóol ma tegal ci benn affaire. waaw doomu aadama daa war a yarul lool. waaw waaye daa war a ñàkk kersa lool. Ah. jamono ko laaj. Ah, c'est-à-dire du jikko ju nit di war di ndamo. Ah. mais jamono ko laaj. moom yarul ba koo gis jàppal ne moo la gën. Mm-hmm. ay nang ci boole ñàkk kersa goo xamante ne ji ku yàq du la yàq. ayca eh, dañuy daxantu ba yaraax. dafa hmm. xew. benn waaye daal lañ seen. ca xeeri yaraaxa ca tefes ga moo gën a gone gu jigéen gu am 16 ans. Hmm. daal xaw ma doon doon bari xaw ma nu mbapat la woon daal waaye daal benn maire gis na leen dàq ji leen ba jàpp gone gi gone gi nag bi ñu ko toppee boo yóbbu ko hôpital ba seet ko yëpp. Hmm. daal xale bi 16 ans am waaye am na lu ñu gis ci mbagg mi. mbagg mi naan lu naan brin lañ fa gis brin xaw ma jigéen ñi li jigéen ñi di def pour def. Euh, planning planning mën nañ fa fekk. affaire bi daal luus na daal waa jañ ko bettal daw na dem yoonam bàjjenu gox ba jël na ko yóbbu këram hmm. doomu bàjjenu gox bi mooy expliquer déglu elle a été retrouvée fii nii ci plage ko fu ñuy wax xeer ya ki ko gis da ko gis ak benn xale bu góor taa dafa dajeek sama tata toog foofu ci xori mu ne ko xale bu góor bee de kii mu xale bi xale bi jigéen la nekkal te daa mel ni ko doon tëddee. sama tata bi jug daw gaan bi nu mu ko gisee ak sama tata bi ni muy ñëwee noonu mu jàpp ci loxo xale bi jigéen bi di daw ànd ak léegi moom dafa am poids ni leen doon toppee ci booru géej géej gandus bi dafa dem ba mënatul daw. ñii daw ñoom mu ngi taseeg beneen xale bu góor bi ñëw en face moo ko jàppal ma ko. jàppal ma xale bu jigéen boobu la ko wax. ki mu àndaloon aussi s'est arrêté mu ne ko kii foo leen foo ko yóbbu. xale bu góor bi bi ko téye mooy wax lii mu ne patt mu ne ko yow foo dëkk mu ne ko caaroy laa dëkk mu ne ko kii loo leen sekk après ci la ci la ci la dawee bi xale bu góor bi àndoon ak moom dafa daw sama tataay bi mu ñëwee bi mu ko gisee bi mu ne ñëw na dalal ko laaj ko ne ko loo tudd mu ne ko kumba et depuis lors il refuse de de de waxaatul du kumba boobu mu wax

bi muy ñëwee ci kër gi doxam rafetul dara et am ñu naan été violée parce que nee nañ bu mu ko bi ko sama tata bi jëlee ci booru gi ga ba mu ba mu ba ko ñëwee dalal muy toog noonu bu mu yëkkatee yëre yi dafa fekk tubéy bi mu simi ko simeeku na woon déjà après mu solal ko tubéy bi ci la ko neewaat dal fii nga noppale ko parce que elle était trop faible même ci guddi gi bi mu ñëwee elle était trop faible. et sa façon de marcher aussi n'était pas du tout jolie nous sommes doon tout tout le temps. le lendemain nous ñu jógeel nag de yaay defaral toppatoo ko génne ko yëre mu sol jox ko lekk ñu yóbbu ko hôpital ñu demee hôpital on a expliqué le cas fii centre de santé bi yarax Mais sage-femme ñu ils ne vont pas prendre ce risque parce que la situation elle est assez <clears throat> compliquée parce que déjà nous avons xale bu jigéen bi dañ ko peut-être dañ ko violé déjà dafa réer donc affaire yooyu gynécologie lañ ko war a yóbbu gynécologue bi gynécologie bi gynécologue bi foofu je crois que ñëwul woon parce que euh, finalement daal seetuñu ko du coup elle s'est retournée ak moom ñu ñëw fii ci kër gi encore mais bi mu ñëwee sama yaay da ko da ko doon questionné ki nga doon kooku noonu kan la mu ne ko tonton da nga bëgg ma yóbbu la seen kër danga may foo dëkk comme ça ma yóbbu la seen kër mu ne déedéet bu nga ko yóbbu lu tax bëggoo ñibbi dañ may dóor foo dëkkal sa yaay mu ne déedéet sa papa mu ne waaw sa jabaru papa mu ne waaw. laaj na ko jàng nga mu ne ko waaw ban classe nga bàyyee mu ne ko mu yëkkati baaraam ko quatre mu ne ko quatrième mu ne ko waaw. et elle refuse d'écrire son nom de son nom moom daal ay besoin rek lay wax su bëggee cere defal ma cere bu bëggee mburu ak akara laa bëgg jëndal leen ma lii xeeli leen ma lii rek lay wax mais du du loo ko laaj du la tontu boo ko naree laaj laaj yu bari sax estenarve tourné la le tout. bi ki ko for bi mu ñëwee fii démb mu ngi da da fekk moom gis na ko depuis l'autre jour bi muy dem euh, bi ñuy dem gendarmerie mais bi ñu wàccee ci sareet bi mu koy jàppale mu wàcc noonu daa da kaa jàpp pour pour jàppale ko pour mu wàcc euh, ci la dajee brin bi.